tuuma ki koy jëkk mooy maa tuumaal diw boo tuumalee nit fii ci réew mi borom njaboot ku am ndey ku am baay ku nu tuumaal sa baay nga mer ku nu tuumaal sa bokk nga mer ku nu tuumaal parce que danoo am njaboot borom njaboot boo ko tuumaalee da war a indi preuve soo andiwul preuve ndax alal ji alalu réew mi la bu nu waxee ne alal ji diw lekk na ko diw moomu amul droit lekk alalu réew mi nanu saytu ndax lekk na ko wala lekk ko su fekkee diw da koo lekk ñu sanction réew mi sanctionné ko mais bu fekkee diw lekkul nag bëgg ko ne dafa lekk nag su boobaa yow mii dañ laa war a sanctionné te yow nag yaa war a indi ay preuve leeral gis nga man mii dama ne député laa mais bu ma justice convoqué damay dem soo jarul sax ma naan immunité parlementaire du ma ci nëbbu suñ ma woowee fu ma soxlaa damay ñëw su fekkee danoo gis ne war naa mën a leeral damay dem leerale askan bi lañu bëgg a leeralal xamal askan bi ne ah, lii daal wax nañ ko fi ci réew mi ba nu waxee ci réew mi nag. lii tuuma gi am na fi woote nañu ci loo xamante ne nii pour leeral la loolu rek lañ fi nekkee. waaye a def nag bu ngeen xoolee ci règlement intérieur am na droit déglu ay DG te c'est pas une première fois déglu nañ fi ay directeur fii boobu ñëwaguñu ñun am na at yoo xam ne déglu nañ fi ay nit du lu bees bu doon lu bees la ngeen ne alors que ne eh, du ku mën day la amu ku mën ay mais du lu bees. xam nga élection li ci des bari na te kat xuli allahu malikul mulk gëm na yàlla mooy fal loo fu am président Macky Sall bu ko doon def kañ avant élection la koy def kon ben intérêt la am diko def ci heure bi heure bi président Macky Sall yoonam newul ci mbir mi xam nga mbir mi ñan la concerné ñun ñoy représentant du peuple on doit informer le peuple sénégalais mais président Macky Sall lii yoonam nekku ci xam nga fan la ci yonam nekkee hein moom mooy chef fu ñëpp mooy kilifa ñëpp bu nu paree ñu rendre compte ne ko président lii la gis lii la am lii la ñu am ci preuve.